dogal ba tukkee ci àttekat bu tribunal d'instance hors classe bu Dakar daal di effacé ba mu set wecc radiation Ousmane Sonko ci liste électorale yi xam ngeen ne ba fii administration bu Sénégal lànk nañu ne daal du ñu jëfee dogal bi nga xam ne tukkee na ci àttekat bi nga xam ne dogal ba ba mu rotee ci lañ ko waroon a jëfee mu sàkk woon ci waa Sonko ñu daal di dem déposer candidature am gannaaw ba ab huissier saytu jéego yi nga xam ne jot nañ koo def ngir Ousmane Sonko mën a bokkaat ci fichier électoral bi waaye itam. CDC bi nga xam ne ba léegi bëgg ko jox attestation bi wane ne kat joxe na ab caution Ndiaga Sylla di leeral ni fi mu nekk nii nag jot na ñu daal di jokkoo ak conseil constitutionnel ngir yëgal ka li nga xam ne nag moo am wax ki itam jafe-jafe yi nga xam ne moom nañu jànkonteel ndax ndi nag gàllankoor gu rëy la ci mbirum droit fondamental de vote waaye itam gal la ci liberté doomu aadama bi nga xam ne am na sañ-sañ samp ndëndam ne candidat la gis-gisu Ndiaga Sylla bi lee dafa wéeru rek dogal bi nga xam ne moo tukkee ci numéro 1E 2023 bu conseil constitutionnel daal di teg nag ay modalité ngir ñu mën a jot dossier de candidature ci képp koo xam ne rek bëgg nga samp ndënd ngir bokk ci ay élection rawatina nag règle yi nga xam ne moom la commission de contrôle parrainage daal di tëral jëm ci cinq présidentielle bu 25 février 2024 Ndiaga Sylla di leeral ni bi moy bataaxalam bu mujj boo xam ne dina ko def ci coow li nga xam ne am na ci diggante Ousmane Sonko ak ñi nekk ci nguur ak Sénégal ñaan na droit daal di nekk ci kaw ñëpp itam di topp décision de justice yi ndax loolu jàpp na ne mooy cëslaay état de droit ay jongante jëm ci wàllum élection fa mu war a wéeru mooy rek ay principe intégrité moo tax mu sàkku démocratie bi gën a sax dàkk fi ci réewum Sénégal mu jeexalee ci ñaan sunu borom sàmmal ñu bu baax a baax réewum Sénégal bi nga xam ne daanaka ñun ñëpp ñoo ko bëgg te bokk ci Ndiaga Sylla nekk expert électoral. AGT News. Avis sur le contentieux de l'inscription et la candidature de Ousmane Sonko. Je maintiens l'avis exprimé le jour du délibéré prononcé par le juge du tribunal d'instance hors classe de Dakar annulant la radiation de Ousmane Sonko sur les listes électorales. Face au refus de l'administration d'appliquer la décision du juge immédiatement exécutoire, j'avais préconisé le dépôt de la candidature après la constatation par voie d'huissier des actes éventuels de refus de la réintégration de Ousmane Sonko dans le fichier électoral et la non-délivrance par la CDC de l'attestation confirmant le dépôt de la caution. Il y a lieu de préciser l'impératif de saisir le Conseil constitutionnel pour l'informer de ces nouvelles entraves à l'exercice du droit fondamental de vote et à la liberté de candidature avant le dépôt de la candidature de Ousmane Sonko. Cette position est fondée sur la décision numéro 1E 2023 du Conseil constitutionnel fixant les modalités de réception des dossiers de déclaration de candidature et les règles de fonctionnement de la commission de contrôle des parrainages en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Ceci est mon dernier avis public sur le contentieux que règne la primauté du droit et l'obligation du respect des décisions de justice, le fondement de l'état de droit, que la compétition électorale repose sur les principes de l'intégrité et que vive la démocratie, que Dieu préserve le Sénégal. Signé Ndiagasila, expert électoral. AGT News.